ci gouvernement bi fekk naa ngeen di waxtaan bon xam nga la nga fekkul moom da nga ciy maanu. Euh, nit ñaa ngi xaar gouvernement li ma jot a dégg rek mooy wax nañu date ni moom la def gouvernement mais xam nga date. Mm-hmm. Euh, tenirul ay enjeux euh, politique parce que c'est des enjeux stratégiques et puis li nga xam da nga koy jël mu am impact da ngay analyser mais man nga dem ba ci yàgg nga def sa analyse def sa soft. Mm-hmm. xam ni am na ay ay ay ay ay menaces. am na ay risques nga continuer def approfondissement analyse bi pour jël xay na. loolu moo ko tardeel li ñu ci xalaat mooy euh, sénégal yi yëpp euh, méritant ñi ci méritant bari nañu. Hmm. damay commencer ci ñi bëgg a nekk sax ay candidats cent trente candidats mais ñooñu ëpp ñu mérite aussi ñi nga xam ne dañoo toog di leen jàppale. Hmm. Hmm. waaye nag il faut mu am ñu jiitu. kon am na ci itam ñu baax. ñëpp baax nañ parce que sénégalais yi sont brillants dans la globalité. gouvernement yi aussi euh, damay préciser ni man. Euh, nekk naa maire en 2014. gañewaat en 2022 bureau de vote yëpp musuma émarger musuma am benn post donc loolu damay wax en toute liberté. Mhm. pour wax ni gouvernement yi aussi ku nekk bëgg nga dugg. muy ñëpp muy man ak ñëpp mais problème mooy ñëpp mënuñoo dugg ci gouvernement. et analyse yi euh, monsieur Sy wax na dëgg parce que ki nga xam ni daf la gunge ci sa combat nga gagné. da nga koy redevable de quelque chose. Mmh. beneen gouvernement yi mais il faudrait pouvoir faire ça dans l'esprit simplement de gagner parce que président bi génn dafa war a préserver ay akiem parce que def na fi lu bëree bëri nag. ko mmh. euh, loolu kenn weddiwu ko. Mmh. defar na ci secteur yëpp mais ay akiem il faut aussi mu am ñoo xam ne ñu ko mën a préserver mais kii ñëw itam il faut mu am les coups de franche pour mën a am euh, euh, des une équipe de combat. ci lui permet aussi de gagner. Mhm. parce qu'on a parlé des transformations structurelles wax nañu ko def nañu ko am na ay atout am na ay ay insuffisance am na ay menaces mais il faut maintenant que ñu def ay ajustements euh, courageux dans ces programmes la et c'est ce que j'appelle des rectifications ou des corrections structurelles mm -hmm. et loolu pour euh, Amadou bu fekkee mooy gagné ba keneen gagné parce que ku ci nekk mais moom laa ci gisagul ku programme moom laa ci gisagul ko am appareil bu solide parce qu'il a un appareil d'État hmm. am héritage boo xam ni kenn contesté wu ko hmm. kon euh, gouvernement bi nanu donnons du temps au temps comme ni ko Félix boo boigny daan waxee hmm. et nit ñi xool ñi nga xam ni mën nanoo liggéey liggéey bi aussi parce que waruñu topp politique bi rek man appareil appareil la depuis euh, plus de dix ans euh, ci Benno Bokk Yaakaar laa bokk mais lii priorité pour le Sénégal c'est le développement priorité bi fi ñu toll Euh, li ñu doon def def nañ ko nit ñi apprécier nañ mais li des nag mooy la demande la demande économique la demande sociale. Mhm. et mooy xale yi liggéeyu ndaw yi mooy jigéen ñi. loolu dañ ko war a continuer waruñu def gouvernement boo xam ni day def de la politique simple diggante bi lu nekk xaj na fi. parce que mhm. euh, fu dundu xaj juddu xaj fa dee xaj fa. lu nekk xaj na fa kon war na noo focaliser et nous faisons confiance. au président de la république bon man. parce que ci laa bokk. et doy na ma moo tax ma bokk ci. kon ñu bàyyi ko mu xool ak euh, premier ministre bi mu jël. nan la ñuy def mais am nañu satisfaction bi nga xamee ni gouvernement bii ñëw premier ministre moo koy jiite. parce que su ko jiitewul soo jiitewul mënoo am leadership mënoo mënoo mënoo nekk général d'armée parce que day nekk armée mexicaine donc euh, fi ne. ni mu jiitoo donc mm-hmm. ñun kontaan nañ ci léegi nag. Mm-hmm. nan lay tërale gouvernement bi nan lañ koy defee il faut de la représentativité également régionale ça c'est important. Mm. man euh, fi ma nekkoon muy Côte ma yàgg fa di xool Houphouët-Boigny du matin au soir représentation bi dafa baax mais mënoo jël ay ñetti ministre juróom nga regrouper leen ci benn dëkk yeneen dëkk yi amuñu dara mais nag ñu bañ a fàtte wax yi gox-goxaan yi. ñun ñoo yor supa bu économie bi. Mm-hmm. ñun ñoo yor l'économie réelle. ñun ñu nekk ci àll bi parce que loolu la ñuy wax am na ñu gën a sori man mii ngay am ñu hmm. gën a soriwaat. Hmm. ñooñu itam ñu xool nan la leen mën a fusionner mais li may conseiller mooy dañuy wax naan gouvernement restreint gouvernement bu nekkee période campagne gouvernement élargi lay doon joxal ñëpp. mais ñii liggéey ah. ñii liggéey ñii liggéey nga wax leen seen liggéey ñu concentré wu ci liggéey bi bañ a politique ñii politique yi politique parce que c'est comme ça la règle parce que il faut satisfaire les gens il faut éviter les mécontents mais ñooñu. est-ce que ñooñu c'était véritablement des gens engagés pour le développement de ce pays parce que yow boo dee maire di xool li ngay am mais loolu ça pose de véritables problèmes li may wax mooy nit ñi nanu bàyyi président sooy gunge nit doo ko xabtal da nga koy bàyyi bàyyi ko xelam mais nag nangu bàyyi pour mu pour mu am doole pour mu mën a jëm ci kanam. Mm. et ñu continuer liggéey loolu daal laa am lu may wax ci. ci politique ci politique bi.